ak wér ñu yàgg fi loolu dañu teg ci siraatal mustaqim euh, jiital si nag xalif général de Layènes nga xam ne Cheikh Mouhamadul Mokhtar moom Seyna Mandione saaxibal kiram moom Seyna imaam Allahi al Mahdi al Muntazar démb maamam lañ doon waxtaane suñu maam ñu dellu ndokkel ko alaaj baay Cheikh xalif généraux yi koo si nuyu jël ziar baak nuyoo ba yëpp teg ko sa loxo kasa des rek gëmal ne incha allahu taala dana yegg sa kasa des ndax ñoom ñëpp li leen yitteel rek mooy njaboot gi jub nekk si lu baax nekk si li neex yàlla te lépp loo xamante ni lislaam digalu diglew ko ñu sori ko waaye ziar si itam xalif général de Tidiane suñu wéyjur suñu sëriñ euh, sëriñ Babacar si Mansour Cheikh Mouhamadul Muntaqa xaadimul euh, umma fële ca Kaolack ak mboolem kilifa diina yi nekk ci réew mi ziar téléspectateur yu télévision Futur Média yu ñuy topp boobaak léegi si koor gi ci li nga xam ne moom moo di quartier général ni nga ko waxee ñu ngi ci weeru koor te ku ne xam na ne weeru koor jëf yu baax loo si def rek xeet ko ndax ni mu nekkee weer woo xamante nii yiw yi dañ koy ful tuyaaba yi dañ koy ful waaye itam lépp lu si waay def si lu baax gëmal ne borom bi subhanahu wa taala daf la koy multiplier te moom multiplication amul limite moom suñu borom subhanahu wa taala ba tax na naafila yi lépp lu si waay man rek si góor góor góorgóorlu di ko def na koy def ngir yiw yi gën a yokk yokku la bu tey bi nag alaaj baay cheikh dañ ne képp koo xamante ni mën nga ko na nga ko def muy lan li nga xamante ni moom moo di fukki rakka boo defee ñaar sëlmal def ñaar sëlmal ba mu mat fukki rakka rakk bu nekk nag bëgg nañ si wala taamu nañ si nga jàng si fatiha benn yoon waaye ak juróom benn li nga xamante ni moom moo di qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufu an ahad nga xam na saar la boo xamante nii ku koy tari bés bu nekk saa yooyu julli sa àjjana xaj na si ndax jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am saxaaba yi ku mu woowoon mu ñëw mu ne ko yow dama gis na nitu àjjana nga looy def mu ne ko man day saa yu ma jullee qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufan ahad danaa ko boole si saar yi nga xamante ni moom laay jullee mu ne ko loolu moo la yóbbu fi nga xamante ni moom moo di aljana kon saar la boo xamante ni ay ngëneelam bari na waaye itam nekkul loo xamante ni itam lu jara xeeb la waaw mooy li nga xamante ni suñu borom subhanahu wa taala nañ bu doon am carte d'identité loolu moom mooy carte d'identité am boo ko déggee mooy si la ñuy gën a xam kan mooy borom bi subhanahu wa taala ci lay kañ boppam waaw <laughs> xew boppam lu baax waaw borom bi subhanahu wa <laughs> gis nga moo tax wax nit lu baax wala yow sa bopp nga waxal lu baax. da koy waxal sa bopp yàlla sax boppam lay waxal. day waxal boppam wallaay te loolu bu ko defee rek. Mm. am na loo xamante ni moom la ñu bëgg a jàngal moom borom bi subhanahu wa taala. lu mu ci wax sax ci xul wallaahu ahad mu ne. qul huwa allahu ahad. lu mu firi. ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alaaj baay cheikh gars yi dañ doon ñëw nekkaan xërëm bii yàlla la. manaata yàlla la. uzza yàlla la. laata yàlla la ak yeneen ak yeneen ak yeneen yàlla ne ko kaay nag ma wax la kan mooy yàlla dëgg kan mooy buur. kan mooy ki nga xamante ni moom moom moom lépp moo sàkk ñëpp moom subhanahu wa taala ne ko qul waxal yow sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yéefari màkk yi nga xamante ni dañ may bokkaale di ma tooñ di jël leneen wala yeneen wala keneen di ko bokkaale ak man qul wax leen ne huwa yàlla mi nga xamante ni day moom ngeen di dàkkante la seen yàlla yi kenn képp laa si xam mooy allahu buur bi nga xamante ni moo tudde boppam lafzul jalaala bi nga xamante ne moom moo di allahu mhm. te mooy yàlla xam nga allahu boo jëlee langue yi si àdduna yëpp mën nañ ko tudd mhm. ndax ni nga xamante ni noonu la universel ni mu yaatoo allahu samad yàlla mi nga xamante ne ni moo noot lépp yàlla mi nga xamante moo boroom kàttan yàlla mi nga xamante ni mooy dogal lu ko soob yàlla mi nga xamante ni moom rek moom subhanahu wa moo yor yëf yi di ko doxal te du tàggu kenn du rendre compte kenn te itam kenn du ko wax lu tax yow nga def lii kooku mooy yàlla suñu borom subhanahu wa taala mu ne ko qul huwa allahu ahad yàlla moomu mooy kenn moom rek lañu war a jaamu waruñu ko bokkaale ak kenn waruñu ko bokkaale ak leen allahu samad yàlla borom kattan yàlla buur bi yàlla borom doole yàlla borom dogal yu ko soob moom subhanahu wa taala lam yalid jurul kenn moom borom bi subhanahu wa taala walam yulad kenn juru ko itam walam yakun lahu kufuwan ahad amul kenn koo xamante ni moom lañ koy dendalal moom borom bi subhanahu wa taala si ay dogalam alaaj baay cheikh bari woon na ñoo xamante ni ay buur yu fi jiitu woon laata suñu jamono ku si nekk demoon na ba jàpp am nga pouvoir boo xamante ni pouvoir yàlla la ñoom ñëpp tey ñu ngi si biir suuf ñu jox la si exemple jëlal na moom mi nga xamante ni moo taxawoon ne ana rabbukumul aala hmm. man maay seen yàlla ju mag ji bi mu demee ba jaaxle mu ne gëm naa ne sax xëy na Moussa mën na am yàlla waaye yàlla jooju yàlla ju ndaw la wal iyaazu billah yàlla yàlla jéggal si liñ koy wax mais dañuy waxtaan rek mu ne moom mooy yàlla ju mag ji ana firawna tey mu ngi fële boo demee Égypte sa keer da nga ko fekk sa musée ba te yàlla moo ko waxoon ne fal yow ma nu na jiika bi da bi badanika di takkuuna li man xalfaka aaya yaa ngi tooñ sa bopp yaa ngi may tooñ nga ne yow yàlla nga danaa la faat danaa la alak danaa la rey te suuf du la lekk géej du la soxlaa dama lay bàyyi nga nekk ci kaw suuf nit ñi di la gis xam ne ki doon yàlla yàllalu mu ngi ni tëdd te mënalul boppam dara te loolu loo ci jànge mooy yàlla rek mooy buur mooy borom kàttan moo tax mu ne walam yakun lahu kuf an ahad mhm. am na loo xam ne kenn rek moo ko mën alaaj baay cheikh mooy borom bi subhanahu wa taala te def ñu ci jox exemple bu ndaw si ci alquran mhm. nee na yéen nit ak jinne kaay ma lancé leen benn défi ñu ne défi bi lan la mu ne bu dee da ngeen am xam wala da ngeen man wala da ngeen jàpp ne da ngeen am ay pouvoir fexe leen ba créer rek weñ mouche yi di naaw mhm. créer leen ko bu ngeen ko bu ngeen dajale woon seen xam-xam yëpp seen kattan yëpp seen connaissance yëpp ak savoir bu ngeen mën a créer benn weñ bi gën a ndaw mm. pour muy naaw loolu rek borom bi subhanahu wa taala daf si wane kattanam allah ji bàyyi cheikh kon saar wi nga xam ne moo di qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufan ahad nañuy bari ñu koy jàng di kañ yàlla di ko bàkk ndax ku ko bàkk bàkk na boppam mhm. ku ko kañ kañ na boppam mhm. ku ko tagg tagg na boppam ku ko bàkkul kañoo ko taggoo ko moom itam kañ na boppam bàkk na boppam tagg na boppam moom borom bi subhanahu wa taala kon daal alaaj baay cheikh yàlla nañu yàlla musal si bokkaale ak lépp loo xamante ni lu ko jege la nee nañ saar bi ku ko jàng nag naafila bi yàlla dana la jégal sa ay bàkkaar yëpp incha allah te itam dana la bindal ay yiw yoo xamante ni kenn xamul nu mu toll te ëllëg dana la musal si safara si nga xamante ni moom moo di jaxim mhm. jaxim ak xeetu safara la ak xeetu foo xamante ni ëllëg yàlla dafa yóbbu ñi nga xamante ni dañ leen di buggal yàlla nañ si yàlla musal alaaj baay cheikh mu nga jërëjëf yaa oustaz neexoo posé question benn question lañ lay posé mais nga tàllal ko mën naa ci dem Tamba ñëwaat am na yeneen yu ma la bëgg laaj mais bu ma la laajaatee koy tàllal koy def c'est-à-dire je pas quoi sa réponse yi nii la toll mën naa tëdd nii ba fële noonu lay tollu mais ma laaj